Ah, ñu dem ci euh, am ay résultats yu probants dem ci innovation parce que foofu la ñuy xaar le nouveau directeur général. d'accord alors Babacar Pape Alé Niang DG bu bees daanaka ñaari weer bu ko matee sax ci la yem wala mu ko ginnaaw bu ñu ko installé. Mm-hmm. indemnité yi nga xam ni état moo ko président Sall moo signé woon décret bi Racine Tall ko yokk seen i salaire ñoom employé ak képp ku fa bokk Pape Alé ñëw xamal leen que ni lii mënul wéy ndax dëkk bi a mun ne xañ na fa neen c'est bien fait quand même laa bëgg a wax. Euh, alors d'abord xam nga fi ñu war a commencer mooy. Mhm. peut-être on peut parler de comme li nga wax noonu euh, bu fekkente ne la le nouveau directeur de la RTS Pape Alé Niang ñëw na. Mhm. bëgg jël une telle décision. Mmh. Euh, forcément comme ni ñu gisee euh, travailleurs yi nekk foofu en tout cas les collègues de Mame Moussa Niang ci li mu leen di woo. Mhm. mën nañu jóg pour défendre seen intérêt. mais ñoom fi ñu war a commencer Bachir mooy lii loolu kenn la à cinq jours. maanaam privilège yi ñu leen di defal. Mhm. ban moment la am. bi bëgg a ki leen ko defal ci résime bu mu nekk def na douze ans. cinq jours mu war a quitter. Mhm. Racine Talla il savait pertinemment même ñu juddoogul sax xamoon nañ Racine Talla moom dafay jógee ci bopp RTS. donc kon moom bi mu leen di defal privilège yooyu ñoom au fond bu ñu waxee ak sincérité man jàpp naa ne li Sénégal yëpp xam xam nañu ko. Mhm. loolu ñu ko doon def c'était pour peut-être économiquement wala financièrement. ki nga xam ne moo ko fi wuutu wala régime bi ñëw ñu créé leen ay problème mhm. ay ndëgg sërëx yu ñu doon lan la mhm. mais def ko ak sincérité parce que fekkoon da koy def ak euh, ak sincérité mu bëgg xëy na gën a ñoŋal condition yi nga xam ne ñu muy liggéeyal ay collaborateur am ci la ñu nekk mhm. du du du toog ba mu wóor ko ne régime bi ku fi tegoon jógee na fi te moom ñi fi ñëw ni yàgg nañu ŋàññi yorin nga xam ne moom la yore RTS à quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf pour cent moo xam ne dafay jógee muy muy xool ay privilèges yoo xam ne da leen koy defal Euh, soi-disant dafay gën a ñoŋal seen condition de travail. Hmm. je pense que loolu moo nekk la première question moom ci boppam xam na ko. Hmm. ñi nga xam ne ñoom la ko defal tamit xam nañu ko parce que euh, j'en veux pour preuve Lamine mu ngi koy souligner léegi. Hmm. ñi mu jëloon mettre leen au frigo. ñi mu jëloon couper seen salaire pendant des mois. pour rien au monde. donc ñooñu ko ko ki nga xam ne nag dafay ñëw ne dafay dafay mettre dans de de très bonnes conditions. kooku du jël say collègues ba pare di leen mettre au pour rien. ñii mu couper seen salaire pour rien ba pare mu ne la yow ak toute sincérité en tant que collaborateur dafay xool nan la la tegee ci yenn conditions yoo xamante ni di nga mën a def sa liggéey ni mu waree. Euh, on a vu récemment euh, la journaliste je pensais Mariama Ba. Mm-hmm. Euh, mu mm -hmm. service mm-hmm. gis nañu journal l'autre jour maa ngi gis am ko ma gis mu ne. dootul raté li nga xamante ni mooy journal euh, vingt heures bu télévision RTS. Mhm. parce que Mariama ba ba ba retourné la. Mhm. je pense que ne c'était fait dans ak ci benn dessin moom mi ko loon def mais amuloon objectivité. Mhm. da ko def ak subjectivité donc parce que le nouveau directeur général. Euh, on s'attendait à ce que bu ñëwee loolu mu ñëwaat yi très sincèrement man loolu bi ko Racine Talla defee bi coow di bëri man damaa jàppoon ne. ki nga xam ne moo ko fi war a wóotu si. Mhm. ak responsabilité bu fekkente ne jël na ses responsabilités. Mhm. li ñu mel bu ñëwee daf ciy def taxaw seetlu bu baax a baax. Mhm. moo xam ne nu mu koy defee ak travailleurs naka lay ñu waxtaan ak ñoom ci ban anam la koy defee. mais man ça me surprend pas que Pape Alé ñëwaat ci ci ci décision bu nu parce que bu ñuy wax. Euh, euh, nga ñëw augmenter des salaires maa ngi am na fu mu koy li ñaan c'est quasiment à quatre-vingt pour cent. oui quatre-vingt pour loolu loolu war nañu ci def taxaw seetlu bu baax a baax. et euh, Euh, nu mu nu mu nu mu tuddati sax moom moom moom moom Racine Talla. Mhm. je pense que ne sax daf ñu daf ñu war a rendre compte. ci ci lu nu mel. Mhm. fan la ko teg. fan la ko teg peut-être on dit que le président Macky Sall euh, moom moo signé woon. décret décret boo xam ne moo changé woon mode de fonctionnement bu RTS. Mhm. mais Racine Talla quand euh, parce que lii. mën nañu la wax des primes yu dem ba trois cent cinquante mille pour des ça dépend aussi. Mm. nga nekk chef de département. wala nekk directeur wala yu mel. selon mm. selon catégorie bi uh-huh. voilà mm. dafay dem ba des millions et des millions voire des milliards. Mm-hmm. est loolu RTS ci boppam am na koppar goo xamante ni mën na couvrir loolu je pense que Pape Alé sax ci ci communiqué bi mu def note de service bi mu def. loolu préciser na ko fa amuñu gafaxaak fay loolu. d' accord mais beneen angle bu bëgg ñu traité ko fa mooy diggante Pape Alé ak ak ak ak waa RTS les employés en tant que tel parce que li may wax sànq Lamine il va falloir benn relation amicale bu am seen a jaar yoon tey est ce nag parfois mhm. gis nga nekk ci sa droit kese doyul mhm. maanaam nekk ci dëgg kese mhm. doyul pour nga mën a nga mën a nga mën a def li ngay def ci anam bu ñoŋ euh, li nga xam ne dafa am solo parce que pour man même si dee jàpp naa ne Pape Alé fi mu taxaw fi mu teg tànkam foofu la mais ci naka nga ciy demee. naka nga ci demee boobu mooy waxtaan dafay baax xëy na ak ñi mu ko seqal parce que gis nga bi note de service bi génnee rek. Eh, gis nañu réaction bi nga xam ne moo ci am jugee ci ku mel Mame Moussa Niang lu mu woo Seko rek. Eh. ñu barrer la route au nouveau directeur eh, général. Pape Alé mm. donc nga nga gis ne am na benn bras de fer buy commencé juddu entre moom. en tant que DG ak ñi nga xam ne ñooy. ñooy ses ses agents ci kër gu ni mel. Mm. donc ma jàpp ne waxtaan war na man war na am seen diggante. Mm-hmm. ñoom tamit ñu bañ a topp seen intérêt ñu xool li nga xamante ni mooy lu faisable. Mm-hmm. lu yenu maanaa ak mm-hmm. lu yenul maanaa ñëpp xam nañu ko. ñoom xam nañu ne lii Racine Talla def yàgg nañu ak moom ci RTS defarul leen ko. lan moo tax mu def ko. Mhm. ñoom seen bopp nañ posé wu cette question là. Mhm. ñu ànd ak patriotisme ñu xam li nga xam ne moo mën a nekk ak li mënta nekk. je pense que aussi Pape Alé Niang est assez responsable pour xam naka lay gérer dossier boobu. Mm. waxtaan na am bu waxtaan amee je pense dinañ génn ci situation bu nu mel mais man ça ne me surprend pas que Pape Alé ñëwaat ci décision bu nu <laughs> mel loolu am na solo ñu avancé ak euh, Lamine ci beneen ponk bi ginnaaw mbiru Pape Alé ak waa RTS je pense que jàmm ji ma sëkk dina ci am mais gis nañ également que ni tey Thierno Bocoum di politicien bàyyi ko fii diwaan Sénégal dëkk Thiès yëkkati na kàddoom ginnaaw li nga xam ne am na ci politique bi Ousmane Sonko grand théâtre bi tout dem Colobane bi Thierno Bocoum il a parlé d'une manière un peu violente noonu mën nañu ko waxee noonu il a dit que Ousmane Sonko n'a pas la capacité requise pour être PM s'il ne fait pas sa déclaration de politique générale c'est un coup d'état institutionnel Lamine boo déggee li mu wax noonu Ousmane Sonko nee na bi mu demee Grand Théâtre la mu fa doon wax nekkul lu moom Colobane bi tout ça foofu de posture am bu deful déclaration coup d'état institutionnel la je loi wax na loolu wala déet bëgg naa am sa xalaat également Ousmane Sonko li mu xam ne que il n'a pas la capacité d'être premier ministre du Sénégal maanaam amul dayoo bi ngir nekk ko tey boo déggaloo ci politicien comme moom wax loolu. Hmm. nan koy càmm waaw bon je crois c'est le lieu de d'encourager hmm. le sieur Thierno Bocoum hmm. ci engagement bi mu jël. pour def euh, assumer def opposition. parce que loolu aussi lañu xaar ci en soi. Il mmh. faut aussi que le régime actuel accepte un, une opposition mmh. républicaine, mmh. une mm-hmm. opposition responsable, mm-hmm. de, à, de, en quelque sorte de critique. Mm-hmm. Parce que l'autre, je ranger dans le lot de critiques d'un opposant, euh, Tchafna Bokoum. Bon, a le droit, comme la Constitution l'a prévu, dans sa, son, son, son, son, préambule. On a le droit opposé où, mais toujours est-il que nous opposition de façon responsable. Parce que ce que moom la engagé mu ngi fustiger en tout cas euh, di jeter l'opprobre sur euh, le premier ministre mm-hmm. et là da xam ne la question ou le le, le, de fond c'est pas le président Diomaye mais mm. c'est toujours le, euh, le premier ministre Ousmane Sonko c'est le premier ministre Ousmane Sonko qui sert d'écran au président de la République euh, président Bassirou Diomaye Diakhar Faye parce que rare di nga dégg ñu critiquer le président Diomaye alors c'est lui le président ah, c'est lui à à lui qu'on devait commencer les critiques mm-hmm. les attaques mm-hmm. mais doo dégg loolu à euh, jamais au plus grand jamais mm-hmm. le président Ousmane Sonko ngay dégg ñu wax parce que c'est le cible de toutes les euh, attaques toutes les critiques là aussi c'est pas surprenant parce que la façon dont son Sonko s'est opposé pour arriver au pouvoir moom dafa ma ni lu mu leble la mais na xaar aussi lu mel noonu mais nañ ko teg ci opposition bu élé élé moom mi dérangé wul en tout cas euh, les Sénégalais dérangé aussi le le pouvoir hmm. mais leneen li muy wax ne euh, su demulee def sa déclaration de politique générale. Hmm. au niveau de l'Assemblée day def coup d'état institutionnel institutionnel là-dessus moi je m'inscris en faux. Hmm. parce que de tels propos su ko waxee. c'est comme si il ne euh, comprend pas ce que ça veut dire une déclaration de politique générale. ak lan mooy les procédures requises pour nga mun ko def. lan nga war respecter ak lan nga warul respecter. parce que ku xam ne ne le premier ministre nommé par le président de République war na dem assemblée comme l'a prévu la constitution sénégalaise article 55 def ne hmm. na nga dem assemblée taxaw ak la représentation nationale parce que par définition l'assemblée représentative de du peuple sénégalais et l'assemblée nationale Absolument. ça que les députés yu yu fa nekk ñoom ñooy représenter le Sénégal donc c'est le Sénégal en miniature hmm. moom la ñuy jox projet de société mu ñu jox la politique générale du gouvernement. Mm. Euh, politique bi am ci mbay mi ci napp gi ah, dans tous les secteurs en tout cas mm. euh, de euh, l'activité économique sénéga sénégalaise. Mm. donc bu nekk ne ñoom répu député yooyu ñu mu nekk benn institution deuxième institution mu am nekk institution bu am solo ñoom pour pourquoi ñu war leen def defal loolu mooy déclaration politique générale parce que. dafa bokk ci mission député ñuy def évaluation des politiques publiques. Mm-hmm. di joxe ay propos proposition de loi. di euh, dem ci askan bi xool seen jafe-jafe. donc bu nekkee ne ñoom ah, matay nañ loolu am nañ taxawaay boobu defe naa le le président le premier ministre warul am problème aussi pour dem def déclaration de politique générale. Mm. parce que ci liñ koy li muy joxe. ci lañ ñoo ñuy sukkandiku bu mun ko xayma.